Ansou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndeye Comba. Ansoumana Dione nga nekk njiital ASSAMM prési euh, nekk di association sénégalaise pour le suivi et l'assistance des malades mentaux actuellement naka la liggéey bi demee foofule ca euh, centre bu kawlak waaw ñoo ngi sant yàlla. maa ngi nii ci centre bi fii ci euh, Kaolack waaye nag ñoo ngi wax ne alhamdulilah rabbi alamin liggéey bi bañ ko dooree ci janvier ba fii ñuy wax nii. liggéey bi amuñu benn jafe amuñu benn jafe-jafe ñi amee feebar xel bàyyeekoo ci Ndakaaru Kaolack Thiès ba Saint-Louis ay réew ay ay dëkk yu bëri Kaffrine euh, ñoo ngi leen di toppatoo te wax dëgg yàlla euh, liggéey bi mu ngi tegu ci yoon moo tax ñoo ngi wax ci bésu tey jii ci bésu si Amadou Bamba bi ñoo ngi sant yàlla euh, jël nañ bépp matuwaay jël nañ bépp matuwaay ngir. bi perne yi ni mu gën a rafetee ni mu gën a bëree ni mu gën a neexee ñu mën koo mën a euh, jottali ñi xam ne ñoo amee feebar xel ak ñeen di ak ñeen ak ñeen di taxawu. Mm-hmm. Euh, ci liggéey bi Ansu est-ce que état bi mi ngi lay jàppale. waaw euh, xam nga régime bi mi ngi doog installé wu. Mm-hmm. waaye li gën a am solo mooy am nañu engagement bi kilifa yi ministère de la santé ñoo ngi sax fàttali ñoo ngi fàttali ne ren bëccëg bi ñu teglal ci àdduna bi mbirum feebaru xel ci sant bii lañ koy màggalee. ànd ko ak kilifa yi xam te ni euh, ñoo ŋànk réew mi kon loolu nekk na loo xam te ni yaakaar la bu am si si ñoom président Macky Sall na nañu président Abdoulaye Wade jàppale nañu am nañu yaakaar bu mot sëkk ne gouvernement bii bu ñu gisee taxawaayu ministre de la santé monsieur Ibrahima Sy am nañu yaakaar ne kilifa yi la ñoo ñu defoon ci gannaaw ñii nii daañu def lu ko raw wala daañu def en tout cas lu tolloo ak Macky Sall ak Abdoulaye Mhm. Euh, bu ma waxee appui est-ce que euh, financièrement financièrement euh, ñu ngi lay jàppale est-ce parce que liggéey bi nga xam ne yow yaa ngi koy def euh, dafa laaj koppar yu bëree bëri. waaw loolu nag exeegul ci wàllu koppar nguur bi gisaguma leen waaye lépp mi ngi tàmbalee ci bëccëg bi ñu jagleel mbirum feebul xel xam nga tey ba fekkee ministre la santé ñëw na fi président de la République Bassirou Diomaye ñëw na fi. premier ministre Ousmane ñëw na fii bu ñu gisee lu ñuy liggéey xam ne ñun askan bi la ñuy liggéeyal dama jàpp ne mënuñu lu dul dugg ci seen loxo ndaxte lu baax képp ku bëgg lu baax bu ko gisee dina ci dugal loxo moo tax ñun bëccëg bi nga xam ne moom la ñuy màggal mi ci mbirum feebul xel loolu rek nekk na lu rëy rëy rëy si ñun nguur gu bees am na muy bëccëg bu njëkk ci mbirum feebul xel ñu d'accord pour ñëw fii si Kaolack ñun loolu rek comme lañ ko la ma ci réunion yi su fi yemoon sax neex. Hmm. président euh, Bassirou Diomaye Faye premier euh, premier Ousmane Sonko ministre de santé Ibrahima Sy mi ngi pare jox leen bataaxal boo xam te ñoom bu ñu ci tegee seen bët omo sikk sàkk ne ñëw fii ci Kaolack bu ñu ñëwee Kaolack seen loxo en tout cas daañu ko ci dugal. waa actuellement euh, ñan ñan ñoo ñaat malade mentaux nga am ci centre Kaolack bi est-ce que xayma nga leen exactement. waaw euh, xam nga nag euh, fan yi passé yëpp ba démb-démb dafa am ay malade yu wér ba ñu delloo leen seen biir ay kër ndaxte ñun suñ yéene mooy malade lu fi ñëw boo fi defee diir benn weer ñaari weer boo amee tan boo boo wéree ñu delloo la say mbokk bu ko defee nga delluwaat askan bi kon tey jàpp naa ne li fi nekk li fi nekk jege na lu tolloog ñaar fukki ni yoo xam te ni ñu fi di faju waaye li ëpp si ñoom li ëpp si ñoom wér nañu ba génn nañu léegi nag dañuy xaar màggal gi passé ndaxte fan yi nii médecin yi dañuy nekk Touba kon su magal gi jeexee ci la ñuy fexewaat ba centre bi mu amaat ñeneen ñoo xamante ni daañu ñëw fa faju waaye biñ tëg biñ tàmbalee ak léegi li ñuy toppatoo ci ay malaat ëpp na ay téeméer jëm kaw kon loolu mbir la moo xamante ni buñ ko continuer feeg at bi jeex feeg ñaari at ñetti at ñeenti at jàpp juróomi at mbirum feebaru xel nekk si mbedd mi di taxawaalu na wàññeeku ci Sénégal bu baax a baax a baax ndax ndax ñun suñu yéene mooy ku amee feebaru xel foo nekk ci réew mi ñu jëlee la fa indi la fii ci kaw la toppatoo la ba nga wér ñu deelal la sañ mbokk loolu daal mooy suñu te yàlla mu ñu si dimbale ba bi ñu toll nii képp kuñ fi indi rek yàlla may la tan ñu ñu yóbbu la en mm-hmm. uh, Ansu beneen uh, ponk bu am solo moom mooy fi ñu ni gis nga uh, rey yi dafa bëri fii ci Sénégal criminalité bi jaaxal ñu baree bari yow naka nga gisee mbir mi lan moo si solution. waaw réew bu ñu demee ba nit ñi kenn xàmmetu leen bu ñu demee ba nit ñi agression rey nit gaañ nit ëpp na fa loxo nit ñi dañu war a jaxle waaye bu ñu seetloo li xew ci làmb ci man su ma gisee ab nit mu dóor boromam ci kanam mu nàcc ay nit di tàccu loolu musiba naru lay la. Hmm. bu ñu xoolee suñu pièces théâtrales yi suñu film yi ba ci suñu euh, débat yi nga xam ni ci wàllu politique wax yëpp ay waxu violence la amul benn kàddu boo xam ne mi ngi jóg te indi jàmm réew moom nag bu demee ba nit ñi di kon loolu bu mu bett kenn man damay wax naan la Serigne Mor mbay doon wax. nañu euh, nañu def ndëpp national la sëñ Cheikh daan wax nañu sang dëkk bi balaa ñu ko sangee deret loolu xam nga lan lay wundu mooy ñu raxas xel yi xel yi bu tilimee xool yi day yàqu te bu xel yi tilimee xool yi yàqu nit ki ku mu rey day yomb ci moom ñun bañ nekkee xale buñ daan xeex suñ biir képp ku for xeer wala képp ku jël ngànnaay boobu sax ngànnaay sax kenn ndaw kenn daaw kenn daaw ko xalaat da ngeen xeex kurpañete ba noppi lëngoo ànd ñibbi waaye léegi xale yi xeexatuñu dañuy reyante da ngay xuloo léegi ak nit mu dugg ci bitik mbaa mu dugg këram gàddu paaka ñëw jàmm rendi dem nañ sax ba dañuy rey ba pare taal nga gis ne kon fépp euh, maanaam su mbir mi toll ci wàllu métit mhm. ci wàllu ci wàllu coxoor loolu xamuñu ko woon moo tax tey ji man damay ñaan yàlla kilifa yëf sek tey ji muy président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko premier ministre ministre de l'intérieur le ministre de la justice ay matuwaay ba ñaawtee fi nga xam ni ay nit ñu koy def maanaam nañ koy waxee maanaam askan bi am féex ñoom def ko di ñaawtee fi euh, ñu nekk ci beneen euh, maanaam tiitaange bi nekk ci ci seen camp te loolu nag pour mu am dafay laaj ay matuwaay yu rëy rëy rëy waaye loolu tamit jàpp naa ne doon na rafet trop ñu ñu ñu ñu agir ci xelu nit ñi ci seen yar xale yu ndaw yi ñu tàggal leen ci bëggante ñu tàggal leen ci ci muñ ñu tàggal leen di balante ak parce que dëkk boo xam ne nii boo ne man maa fi gën a dof maa fi gën a réew maa fi gën a xamadi loolu du jikkooy Sénégal nañuy déglu wante nañuy balante ak nañuy dimbale wante rawatina waaye loolu tànk amuñu ko lenn moo fi nekk am nga alal dinaa ñëw daan la boom la jël sa alal nga xam ne kon alal moom la nit ñi jiital alal boobu nag fan la joge ci suñu théâtre yi nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi ñu koy joué di wane loo xam ne nekkul di nax xale yi di leen wan ne seen Sénégal ajjana la déedéet réew adduna bi yëpp la amul fenn fu neex. adduna hmm. bi moo coono ñoo ànd. il faut nga xam ne pour nga am alal foog nga nangu liggéey foog nga nangoo sonn foog nga nangoo muñ mais yëpp boo boo ko nanguwul lenn la nga yaakaar yor sa paaka. di agressé nit ñi di rey loolu musiba naru lay la. Hmm. est-ce que peine de mort solution la parce que nit ñi actuellement jàpp nañ ñi foog ñu indiwaat peine de mort pour régler problème bi. peine de ku rey nit ñu rey la mën na indi solution lu mën a nekk la waaye boo jëlee réew moo xam ne du réewu jullit donte ne ay jullit ñu fa réew mi réew laïc la dañu dëkk ak ay jullit. ay chrétien ak ñeneen ñu dul chrétien du ñu jullit kon mbir mi du mbiru diine nañ fexe nag waxtaan bu ñu waxtaanee ñun ñëpp ñu jubboo muy kilifa diine yi kilifa aada yi muy nguur gi tas di taskati xibaar yi di société civile ñëpp bu ñu mànkoowee wax ne nañu indi peine de ku rey nit yoon dana la euh, yoon dana ko mën a rey waaye su fekkee ne lool amulee dafay indi jaxasoo waaye man li ma d'accord mooy balaa ngay wax peine nga fexe ba yar nit ñi nga fexe ba nit ñi seen xel ñu xàmmee parce nit ñi xàmmeetuñu fu mu ne nii nit ñi seen xel yi moo jaxasoo ba xàmmeetuñu kon loolu boo ko réglewul maanaam booy faat ëllëg yaa ngi faat ñoo xam ne nii dañ soxla ku leen dimbalee boo jëlee xale yi tey nu ñuy jëlee wàllu drogue ñenn ñoo fi dugal drogue bi ay kilifa. am na yoo xam ne nii boo fa dugalee drogue moom moom ci saa si dañ lay faat mais Sénégal ngay gis ñu fi dugal co cocaïne di fi dugal drogue dure te ña koy dugal dañ leen di xam de waaye da yoon dañ di bàyyi ñu dem doxi seen afiya waaw loolu nan lañ mën a waxee loolu nit ñi seen xel moo tilim nit ñi seen xel yi moo jaxasoo Sénégal ni mu mel ni tey daanaka nit ñi wératuñu bàyyi may sax ñoo leen tane kon ñu mel noonu boo buggee indi euh, loi boo xam ne day indi peine de maanaam di nga faat faat yoo xam ne ni du indi benn solution kon te tey tey jii su ma nee réew mi euh, euh, dañu nekk si gouvernement laïque su ma nee du réew jullit en ah, kay réew jullit la gaa réew jullit la waaye jullit kese moomuñu ko kon nga gis ne état laïque la état laïque nag boo ci nekkee da ngay xool nan ngay doxalee pour que li nga bëgg euh, nga mën ko doxal nga doxal ko ci kaw consensus ci kaw ñëpp mën ci ànd nga mën ko doxal voilà Ansoumana ah, Dione dernière question rek ma laaj la si euh, euh politique bi nga xam ne régime bu bees bi tëral na ko coow li bari nga euh, gis nga euh, kuréel yu bëree bari yëngatu am na fa euh, collectivité territoriale yi gis nga côté presse bi fële ca port autonome LONASE ainsi de suite naka nga gisee en tout cas politique bu bees bi njiiti tëral te mu jur coow. waaw nguur gi doog a nguur gi doog ñëw man dama jàpp ne. dañ leen a war a may temps dañ leen a sax jàppale dañu war a ñëw gunge leen tey ajuma bi passé la ñu doog installé ci ministère de la santé directeur général de l' action sociale ba fii ñuy wax ni am na ay directeur général yoo xam ne ba léegi nii jëlaguñu fonction kon tey askan wi muy politique yi muy taskati xibaar yi ñun ñëpp dañu war a ànd taxaw jàppale nguur gi bees gi nguur gi bees gi it nangu moom tamit ubbi ay loxoom ubbi ay buntam pour que nit ñi mën a ñëw egsi si ñoom ndaxte réew kenn rek mën ko mën ko defar seen yéene rëy na seen ay diggé bari woon na waaye la ñu fekk fii tey ci réew mi tey jii est-ce que loolu may na leen ñu indi ay tontu ci suñu ay saafara jàpp naa ne déedéet ñoom tey jii coow li bari na ci wàllu euh, ci ci ci ci secteur yi bari coow bari na lool waaye nit moo mel noonu. Euh, boo doogee ñëw am na ñu baax am na ñu bon am na ñu xam am na ñu xamul loolu yëpp nag au fur et à mesure ba ngay dem ci ngay jubbanti ci ngay tollale ci ngay corriger mais mënoo ñëw rek teg benn équipe parce que nit ñi seen yéene yi wuute nañu kon tey ji li fi nekk mooy nguur gi xam ne coono askan bi moo tax ñu far leen ci wàllu xëy ndaw yi ci wàllu mbëkk mi ci wàllu insécurité ci wàllu ñi amee handicap ci wàllu ñi amee feebaru xel loolu yëpp nag boo ko tënkee lenn rek moo la ci mën dimbale mooy nga fa yàq askan bi ngeen nekk benn yàq politiciens yi ngeen nekk benn parce que teel na teel na ñuy def bilan déedéet waaye bu ñu continuer nii amaana fu ñu jëm du baax kon dafay baax ñu teel a taxaw ñu ñu jubbantiwaat yenn yi nekk benn bokk ndey bokk baay ngir liggéey réew mi man Ansoumana Dione li ma jàpp mooy. Mhm. nguur Bassirou Diomaye Faye bii. Mhm. bu échoué mooy Sénégal dina métti trop parce que kenn dootul wóolu kenn. kon dañu war a fexe ba homme politique fexe laxasaayu jàppale nguur gi fi nekk nguur gi bu su amee ndam. Mhm. day nekk ndamal Sénégal gi yëpp. nguur gi su échoué day nekk échec Sénégal gi yëpp li xew na ci yenn entreprise yi. rawatina la presse. man wax naa ko dama ne mënuñu am développement ci am réew te amuñu une presse forte libre et indépendante wax na kilifa yi sax dégg nañ ma nee naa kilifa yi nañ woo parce que xibaar yi toog ak ñoom waxtaan parce que Sénégal waxtaan mooy saafara lépp réeroo amul ñàkk waxtaan am li xew onage li xew fenn ak fenn ak feneen bu ñu toogee waxtaanee ko dana ci gis solution waaye man ñaanuma yàlla ñu continuer. di xuloo ka ŋaayoo ci kaw askan boo xam ni moo ngi jaaxle loolu dafay jur loo xam ni ci ab réew moom la ñu tuddee frustration te frustration bi am na fu muy toll nguur gi moo ciy perte Ousmane ko doon la ko wax borom caq yu xeex ak borom baatu neen ñoom tey ñoo yer caq bi dañu war a fexe ba caq bi ki xam ne amu baatu neen moo bañ ko jot ba di ko dagg man Ansoumana Dione ak ku mel ni man dama jàpp ne ñun ñëpp ñoo war a saayu ànd ak ñoom jàppale leen man day Ansoumana Dione danaa jàppale nguur gi. Hmm. ànd ak ñoom bépp jafe-jafe boo xam ni am naa ci xalaat am naa ci am naa ci saafara dinaa leen ko jox su bu ma la ko mënut jox ma wax la ñu dégg léegi nag bu ñu jëfee xayrun bu ñu jëfeewul xayrun su ma leer nag ne dañ jóg ci tànku yàq. may njëkk taxaw ne lii du fi amee parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye nag ñun ñëpp ñoo war a bokk mànkoo ànd liggéey ak nguur gi fi nekk bu ko defee askanu Sénégal seen ay jafe-jafe ñu mun ci day saafara. voilà merci beaucoup Ansoumana Dione maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. Ndeye Comba maa ngi lay fay euh, maa ngi lay gërëm mën tamit di am mbégte euh, indi ay euh, tontu. ci laaj yi xam ne en tout cas soxaloon na la. voilà may fàttali ne Ansoumana Dione yow yaay njiitu assemblée association sénégalaise pour le suivi et l' assistance des malades mentaux jërëjëf Ansoumana Dione. jërëjëf